moo indi li nga xamante ni hmm? culture te te dafa ça correspond parce que euh, euh, volet culturel bi moo manqué woon ci l'islam Cheikh Ibra moom la indi mhm. volet culturel bi moo manqué woon parce que boo jëlee lislaam Arabie Saoudite le volet culturel est radié bokk ci la mhm. l'Arabie Saoudite son doctrine mu ngi am ci juridique ak histoire ak lettres mooy l'islam ñoom loolu moom seen université islamique arabe hmm. saoudien ñoom loolu mooy seen modèle quoi ñoom dañoo dañoo dañoo sculpter l'islam bi ba mu dëpp ak ñoom liñ bëgg. Hmm. ba pare ñu def promotion bi ak marketing bi di financé yenn association religieux yi pour ñuy jàngale ñoom seen doctrine. selon ñoom ñu gisee l'islam. la. Hmm. est-ce que comprendre nga te loolu moom loolu moom moo indi appauvrissement de l'islam parce que l'islam tey jii bu doon oto la dafa paan. Hmm. parce que defar ne dinañ ko sangu ba mu rafet. defar ko ba mu rafet ba lépp jaar yoon mais amul énergie bu koy. mu dem mu toog mu taxaw benn place. dafay taxaw benn place ak taaram daal. très bien parce que énergie bi ko war a tax mu àgg fa mu jëm ko culture la te dañ ko reyee mais culture boobu nag faculté bi ko doon gérer mooy le soufisme. Mm-hmm. waaw parce que tey jii mënoo wax ci Cheikh Ibra te jaaroo ci soufisme. Mm-hmm. parce que sinon doo ko mën a justifier ko bien parce que dafa am ay certains euh, parce que dafa am benn conflit buy bu yàgg boo xam depuis lislaam dafa am muy conflit entre les juristes. et les soufis mais les soufis ñoom na sont pas des juris ñoom sont de docteurs. Mm-hmm. mais conflit bi fi mu daan am mooy juriste mën na condamné docteur ñëw libéré. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy conflit bi. comme ni mu demee nii nga xamante ni juriste day condamné. politique waaw. <laughs> ñëw ah, libéré tey jii ah. normalement bu ñu jëlee ni le cas de Sonko. avec sa maladie il devait être libéré parce que c'est des problèmes de santé. sur ordre de médecin de médecin. pour sauver une vie. parce que libéré nañ fi ñoo xamante ni jaaruñu sax pavillon. est-ce que yaa ngi dégg wax ji donc foofu il y a question de ñëwaat sur table. fa mais euh, euh, le juriste muy xaali en l'islam mooy kii àtte. kii àtte. Euh, le docteur mooy le soufi ñoom ñaar bokkuñu ko question kii daan li tax nga def kii day ñëw àtte tëj wala mu bàyyi wala mu kii kii nag day taxaw di xaar lan moo tax mu def li ñu poser question le soufi le soufi le soufi day le docteur day poser question balaa mu lay condamné day poser question. Mm-hmm. lu tax nga def lu tax nga def. parce que bu xamee li tax nga def. à partir de là fexe sax saafara loolu noonu. très bien bu dee da nga sàcc ndax xiif. waaw dina ji ma fexe xiif ñu wàññi ko sàcc wàññeeku ko. su boobaa ki yor responsabilité jaami di leen seetaan ba ñuy xiif bay sàcc. kooku la ñuy condamné kooku la ñuy waaw wax nga dëgg. waaw bien sûr. <laughs> kooku mooy coupable bi du. bien sûr bien tout à fait. du ki sàcc pour lekk philosophie